li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy do rek kàddu yi nga xamante ne rek Abdoulaye Makhtar Diop daal di nag koy yëkkati ne na Amadou Ba ci jëmmi boppam rek dafa daal di ñàkk opportunité boo xamante ne rek day wane nag lii di engagement ci langum politique di kàddu kii di Abdoulaye Makhtar Diop ne na moom ci jëmmi boppam rek jot na jéem a nag jokkalante wala mu déggante ki nga xamante ne rek moom mooy Amadou Ba Abdoulaye Makhtar Diop nag daal dina yëkkati ay kàddoom rek wax rapport bi doxoon ci diggante kii di ancien président de la République Macky Sall ak ex premier ministre ministre ba woon di Amadou Ba ginnaaw rek mu gisee ne rek ay yàqu-yàqu nag amoon na seen diggante laata campagne électorale bi rek di door ndax nag ci élection présidentielle yi nga xamante ne rek moom la ñu di génn ci ab entretien boo xamante ne rek doon na ko am ñu dippee ko grand jury foofa ci rajo Futur Média kii di grand serigne de Dakar daal dina yëkkati kàddoom ne ne moom ci jëmi boppam rek doon na jéem a déggante ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba ngir mu conseil ko nag mu daal di jugee rek ci xëccoo bi nga xamante rek doon nañ ko xëccoo bopp nguur gi ndax na gis nañ ne rek euh, ne rek ñu ngi nekk ci ba parti bi di Benno Bokk Yaakaar waaye nag ko woon benn yoon naam sax kii di Macky Sall nag moom moo nekkoon président bi euh, ba tey rek Grand Serigne de Dakar mu daal di xam ne nee na nag bu sukkandikoo rek ci kàddu yi nga xamante ne daal dinañ koy fësal moo di ne nag bu sukkandikoo ci ancien ministre de sports euh, kii di Amadou Ba moom ci jëmmi boppam rek manqué woon na opportunité am nag ngir wane engagement politique bi nga xamante ne rek moom moo ko war ci diggante ba Macky Sall naam Macky ci jëmmi boppam nag moom moo ko tànnaloon boppam ngir mu daal di ko fi wuutu rek mëtal action yi nga xamante ne rek euh, moom la doon def waaye nag ci campagne électorale bi daal dañoo gis ne rek acte yi nga xamante ne gis nañ ko rek ci boobule coalition Benno Bokk Yaakaar ay sabotage dëgg la te ñi ko doon def nekkul ñenn nag ñu dul ay jegeñaaleem ba tey rek kii di Serigne Serigne de Dakar El Hadji Makhtar Diop la mu daal di xam ne rek moo di Macky moom ci jëmi boppam rek doon na jéem a a euh, bëggoon remplacer boo xamante ne mi ngi woon ci bopp coalition Benno waaye moom ci jëmi boppam dafa dem ba xam ne rek jege bi nga xamante ne rek jege na ko kii di Ousmane ak Diomaye mën na yàq nag boobulee candidat ak coalition bi nga xamante ne doon nañ ko demee ba tey bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Makhtar Diop ma nga dal di xam ne ne situation bu nu mel daal nekkoon na bu complexe ndax kii di Amadou Ba moom ci jëmi boppam rek ginnaaw bu ñu gisee ne rek solidarité dëgg rek moom moo manqué jàll waaye nag gisoon na ne rek amoon na ay jafe-jafe yoo xamante ne rek yu ko waroon a may la pour mu mëtal nag lii di ab campagne électorale bu efficace ak garanti li nga xamante ne rek moom mooy victoire jafe-jafe dëgg rek la ci amoon du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw